Thank you ñoo ngi nii Bintu Diagne invité wu ñu ndogu ñu war fa dem mais ñu dem ndax sa problème mais foo nga wàññi sa tàngoor bi tamit aussi jigéen da nga koy muñal tant que muñaloo ko doon nekk ak moom mais problème kenn mosu leen ko xamee yéen ñaar. moom ba depuis booy yi ba mu fi ñëwee ba changé dafa changé carrément. wax xam nga ba pare li ma ñu gën a métti mooy di ma laaj ay sukkandu ko cent cinquante mille. cent cinquante mille Karena muda mah semua kunjung usaha Lo gini nggak cuma mah. Coy. Ini nekes sarak nol nekes sarak. Mais cent yang timbul sax mel kunda ya le, walau am walau ko wala ko am magale. Te man dara gënu ma met. boy di ma kondisi, semua Su ma ko jox 150 mille dama koy mayu ba bato. Mais nak man en am lu ma lay wax. Mooy que gis nga soxna yi léegi soo si ay comprendre parce que jigéen ni ween yi sëggee dañ naan loolu la xel ni sëggee comprendre soo nekkee moom te doo ngeen yàgg waaw des fois il faut nga yenn sew sewaan yi jàll quoi sinon sooy topp action chaque jour rek mooy loolu fii lay mujjee beneen affaire bi ma lay bëgg a tegal moom xool bul xaar muy yàgg sax ci weeru koor lañu nekk weeru sell la weeru yërmande suñu sañoon dañuy bàyyi rek ñu waxtaan yi leneen li des après ñu dañ ko lijjanti parce que li ko waral yëpp xam nañ ko mama mama bi ñu fi fekk man bu ma ko fi fekkee keroog sama yaram dafa daw parce que naa ne dina fi yàq dara. li nga wax du ma ko weddi mama la bu yemoo fu mu nekk nga jéem ko wëri te xam ne boo ko wëree di nga am dëgg ne moom moo ko def. mama dinaa ko gis dinaa man nag pour man ak nu mu tudd ak nu mu tudd demee mu doon ñaar nag yow jigéen bu taxawee ne ko joxul. jigéen dañoo gàtt xel rek may daxante rek ci mu waxee loolu man bu doon mayoo boo ko faale sax may nekk si li may nekk amul lu moom te xam nga sama dëkk doy en tout cas de toute façon ñu ngi dem ñun lu ci war insha allah dinañ ko def yow en tout cas toogal nga déglu comprendre jarul nga koy woo bu ko wax dara ñu insha allah dinaa wax sa mu fexe ñu gis ma ma lijjanti lool avant ñu ñëwaat fii d'accord voilà maa gis. jàmm ça va ci loo nekk. nga ñu gisee ah. waaw tey di ngeen ma mën a bàyyi li tax. Ah, yow nga ne jigéen dafa baax ci kër gi. heure mm-hmm. ndogu bi di waaj a jot sa gi wéet nii topp sax gisuma ko lan moo la jotale ak bisu bi. nekk bu. fanweeri junni bi la ma si suuf loolu ko. indi tey jii pour mu jéggalu la nga baal ko ak parce que daf ñuy xam ne ñun jigéen suñu xel matul suñu ween yi ni mu sëggee noonu suñu xel yi sëggee suñu matoon kon kenn duñu muur ñu liggéey suñu kër waaye pour dañoo liggéey mais soo xamaloo nga ñëw baal si defee ji ak te duñ ci biir préparé ko commencé ñëw bëri si mu ko si la commencé di ma def pression di ma laaj laaj yoo xam ne mu ko laaj. ay at àdduna Sénégal wërgal këpp ne may fenkat bi may dulkat bi ndax sama làmmiñ téyewu ma ko loolu ngeen wax ah tey nag laa lay wan dëgg bi ndax yow sa jëkkër laam-laame na fu nekk wër fu nekk ne maa lay nettali ba tax sa sa yàqu dama koo dégg déggaat ko ba ma fa dëree dugg nag ba tey déggoo ma wax la lu ñaaw sa diggante ak sa jëkkër baalu leen di féewale lu rafet laa fi wax waaye wax ma fi lu ban comme nag moom la demee dama bëggoon nak nga wax sa ak Yalla bu nekké ne yow gëm nga Yalla nga wax nak man mës la laa sa sa dara. day dama la multiplier par zéro ndax sama jëkkër bam la ne jàpp né man neexu neexo ko ba tay bu fi tégati sa tank la la croix yang may dé man ba ko rawé la croix sa jëkkër ndax day kan ja nak yow nañ waxante dëgg rek te Yalla tax yow ya ñëw fekk ma toog di géré di muñal sama jëkkër xeebalu ma ko daraam ñu ma tok nga ba tay sama njëkk ak sama goro di yak sama dal di ma xas di ma ŋàññi nak nenañ man xawma ma teraanga. woo ko jaar commencé di nga de. mel na tax nag ma ñew takal sama sama jëkkër ay pot pour mu jox ma ma teral len 200000 sax nga ma waxon man mako wañi def ko 150000 parce que jamono neexu ko cofeel da la jox 150000 mille pour nga teral suñuy njëkkee suñu gor. dafa ne naa faa ba jamono neex. digle sangay te do sang moo tax nga ñew fi tax sey jàmbur waka ja ta so dan aku yanga ne waka ja kana yana la ga cho kodon kodon surlase ni ko surlase ngaron den yow surlase wo ma di surlase ki ndax potu wen nga may jox di ma toggal ay soom bi tey aku ñëw fii bëggoon maa jiñ fen bi sa jëkkër ak ak ak jëkkër ku ma aku bëgg maa demee noonu la noonu la wax ji di demee day songale rek bu ma xool de sa bët looy. mais kañ nga gis semence bi moom la bu ma nooy sangu. sangoo sa sangul bu baax mi ni kii madame Viviane rek. Eh, su maman ji maman ji law ba mel ni. Eh, bàjjum gerte ah di tey bu ma waxee tey dëgg mooy ma war a sa sama bopp damay félicité sama bopp.